Pape Birame àggale yaa ngi woon ci ci ci dette bi après ñëwaat ci ah. Pape Moussa ak Pape Sané aywa. waaw donc <coughs> pardon donc dama doon euh, interroger rek di jéem a xool. Mhm. effectivement bu nekkee Sénégal leb na xaalis bu toll noonu. ana fan lañ ko war a dugal. waaw. Euh, plus que waxoon nga ne joxuñu ko ménage yi pour ñu soulager wu. très bien defuñu ko ci ci yaa ngi woon ci infrastructure voilà. maanaam feeñul ci panier de la ménagère. Mhm. permettrul également ndaw ñi. ñu am liggéey ñu jàpp ba dootuñu. sinon euh, duñ jël gaal. très bien léegi nag bu nekkee par rapport ak infrastructure yi nga xamante ni ñu ngi fi. Mhm. Euh, gis nañu par exemple ñu ne daanaka projet bi gën a rëy te souvent ñu ñu koy répété mooy le TER. moo fi jël yaakaar na plus de près de mille milliards wala ëpp na mille milliards euh, euh, ah, euh, terre boobu musafa oui AFD agence française de développement moo génne xaalis bi ci ëpp solo ki nga xamante ne nii moo defar wagon yi train bi ci boppam en en quelque sorte Alstom mhm. boo demee fii tey ay équipe SNCF ñu ngi foofu di récupérer l'argent Sénégal mooy jël chaque année di ci def xaalisam pour permettre li nga xamante ni te woon na ko maanaam huit cent mille passagers yooyu en euh, par mois maanaam bu ko dabul Sénégal moo ciy def xaalisam pour dabu loolu léegi bor boobu nga xamante ni mille milliards la te ñi nga xamante ni ñoom ñoo ñu ko lebal ñoom ñoo koy récupérer léegi ñun naka la ñu mën a waxee ne maanaam leb nañu ko. te moom sax defaguñu ko ko jusqu'à présent maanaam infrastructure yi nga mën a jàpp ne Sénégal leb na xaalis def na ko ci moo ko moom li mu li mu doon xam nga lan la. Mm-hmm. mooy les autoponts la mooy stade Abdoulaye Wade. mooy également les routes dans les les les routes dans les régions. li ci des yëpp xaalis bi muy dañ koy delloo. Euh, li ci des yëpp. Mm-hmm. par exemple boo jëlee Ila Touba bi Ila Touba mais chinois yi nga xamante ni ñoo ciy def seen xaalis ñoom ñooy récupérer xaalis bi ñu ci def balaa ñu ne léegi Sénégal jébbal nañ la ko pendant après vingt concession bi je pense que c'est vingt cinq ans ou trente ans bu boobaa lan moo fay des tëli ba xam naa ne foo tourné ay lii de poule lay doon <laughs> léegi xaalis boobu yëpp ñu ne jusqu'à présent ñun gisu Sénégal en tout cas euh, euh, euh, de bu ñu ne chaque année Sénégal budget bi en moyen quatre mille milliards la nga ne pendant douze ans c'est xanaa quarante euh, huit milliards quarante huit mille milliards. nga ne quarante huit mille milliards yooyu ana fan la dugg ci biir Sénégal tey ba Sénégalais yi mën ci teg seen loxo. lu jafe la. mais ça veut dire que ça n'existe pas léegi nag bu nekkee xaalis boobu. leb nañ ko te war nañu ko fay ñu ne ku nekk ci ñun war naa fay neuf cent mille francs ndax loolu yëpp mat ñu ne xaalis boobu léegi même bu dee dañ koy fay ana naka la ñuy def comme ou bien ana fan la ñu jaar ana naka la ñuy def ba teg sumu loxo ci li nga xamante ni moom mooy investissement xaalis boobu fan la jaar. d'accord la réponse est personne ne voit la réponse maanaam moom. génne nañ xaalis bu bëri au nord du Sénégal. Mm-hmm. nee nañ dépensé nañu ko ci biir euh, euh, dëkk bi. te daanaka kenn gisu ko. du d'où na <laughs> je pense la nécessité ñu dem ci réduction des comptes. parce que bu nekkee xaalis bi euh, investir uñ ko ci dëkk bi mais ci ay poste jàmbur rek la la. la mu ñu xam yan poste la dem. Euh, Pape Moussa très rapidement ci li nga li nga dégg démb premier ministre wax ko du il ne il n'y avait pas que lui il y avait également quatre autres membres du gouvernement. waaw euh, Moustapha boobu la yaa ngi laaj est-ce que bi ñu ko waxee am nga mbetteel ou pas ñi fi ñëw ñëpp laaj nga leen ko mais euh, sénégalais lamdaa bi nga xamante ne euh, moom la ñu doon sénégalais yi nga xamante ne chaque jour ñu ngi dund le quotidien ci réew mi en fait seen problème du lii est que am na wala amul mhm. lu ñuy dund la conséquence bi ñun ñu ngi koy dund chaque jour li doon problème bi mooy ñu lan moo waral ñuy dund lii lan moo waral Dramé dëkk ca Kédougou di dund ci mine d'or te service euh, sociaux de base yi amu ci dara. amu ko lan moo waraloon mu doon dund loolu. lan moo waraloon Sénégal malgré ressources naturelles immenses yi nga xamante ne ñi ngi jàkkoonteeg moom chaque jour mais ñoo am dundin yoo xamante ne normalement loo xamante ne day banaal sénégalais yi nga xamante ne ñi ngi génn dem di bitim réew di gis dëkk yoo xamante ne amuñu ressources naturelles. France ci teewut munoo taxaw ne francais bu feebar faju problème la ci moom munoo wax loolu. Mm-hmm. munoo wax francais jóg dem jàngi problème la ci moom. wala naan ndox mu sedd. wala naan ndox mu sedd or ñun dañoo am problème yooyu effectivement Moustapha. Mm-hmm. am na ci ay dëkk ci Sénégal ci réew mi demal Daaru Mbàpp problème mu naan naan ndox. Mm-hmm. waxuma bu sedd de ndox kese. bu ndox mu sell. problème la ci ñoom alors que. nekk nañ ci ay ressources naturelles yoo xamante ne chaque jour tout le naa en parle pétrole gaz. Euh, zircon or yeneen ak yeneen alors que mënuñ am loolu kon y problème kon li nga xamante ne ñun moom la ñu moom. mais yegsiwul ci ñun li ñëpp bokk ñëpp jotuñu ci ran moo ko waral. c'est ça. premier ministre jox ñu jox ñu esquisse de réponse commencement de réponse mm-hmm. parce que li coow li bari bari bari yëpp. dette bu ñu maîtriser wul la wax. li coow li bari bari bari yëpp ay contrat yoo xamante ne pour ñun ñu bañ a xam lan moo ci nekk dañ koy caché secret d'État loolu ñu xayma ko ba mu toll ci ay deux mille cinq milliards ci loo xamante ne nee nañ rek euh, contrat bi mënuñu koo gis secret défense mënuñu koo gis buñ la ko yebbilee parce que président de la république effectivement moom moo ko def l'institution mm-hmm. kon l'institution mën na ko dindiwaat bu dindi waatee secret défense li ñuy nga jege laaj mooy lan moo ko waraloon nëbb rek li ñuy def point final mais amul lenn loo xamante ne mën na justifier ñu ne wéy léegi contrat yi nii nekk na ay contrat secret défense alors bu loolu euh, weesoo yi tamit det yoo xamante ne buñ ko contracté ba andi ko da ne ban lan ban impact la am ñu suñu dundin dara Euh, déficit budgétaire mhm. d'accord après lan moo koy justifier ci quotidien wu sénégalais réponse bi waat dara alors finalement on se demande léegi sénégalais lambda bi nga xamante ne tey jii nii mhm. moom moo waral euh, ñu doon def lii nii moom moo waral coow li léegi kooku noonu lan mooy impactam ci li nga xamante ne tey jii nii moom Pape su ma la déggee sa explication mooy ñun finalement Sénégal amuñu problème avec une ancienne puissance bu tudd France wala leneen bu ñu exploité ak suñu ku dul suñu njiit. l'argent il est là foofu laa doon mooy ne li ngay gis mooy njiit bi dañ koy fal léegi décret am quelques mois après nga gis léppam changé lan moo koy justifié mooy li gas sama doon wax parce que ñooñu noonu ñun dañ leen doon kii euh, euh, tabb décret moo ko tab après lan mooy justifié train de vie bu muy def doo ci xam dara maanaam doo xam lan mooy seen salaire moo tax président Diomaye bu ñëwee ne man sama salaire lii la. Mhm. sénégal yëpp di xoolante parce que kenn mësul xalaat ne. président lii lay gagné par mois kenn mosul sax jéem président <laughs> waaw donc loolu moom moo doon sénégalais yi ne mais attends président bu ñuy wax salaire parce que ñun waxuma président mais directeur général bi nga xamante ne mi ngi bi rek nga xamante bañ ko tabbee ak léegi quelques weer la nga gis train de vie am yëpp changé finalement dafa dem ba daanatul choqué sénégalais yi parce que ñoom ñu am train de vie boobu dafa mënoon doon lu mel ni normal